laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah awuusu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw mi leen nuyu leen ziyaar leen jaajëfal di ñaanal suñu Muntaxa ba si ñaan suñu borom yàggal ko fi ba lépp lu mu yéene liggéeyal maam ja suñu borom may ko ci lu kawe njottam tey la ñaare fanu safar kenn ku nekk xam ne ne fan yëpp Baay Faal yi ngi amal liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba mooy set setal dëkk yi ak gox yi tey ji ñu ngi fii ci bàq Baqiya Touba di fi amal set setal comme nañ ko daan defee ci yeneen gox yi ñu ànd koog Baye Fall yi mboolem Baye Fall boo xamante ne yaa ngi yeewoo ci biir Touba rek yaa ngi fii tey ci bàqee di setal setal ndax kenn ku nekk xam ne liggéey bi fépp la ñoree waaye fii la gën a ñoree ci bàqee yi ñi nga xamante ne ñoo fi tëdd ñu ngi leen ñaan suñu borom jéggal leen seen i bàkkaar lépp loo xam ne moom lañ doon defee adduna kenn ku nekk xam ne ne set setal fii tiyaaba bi nga fi am rek kenn xamee su ko rawatina ñu jëm ci safar tey di ñaareelu fanu safar ñu nekk fi ci bàqee di ko set setal ñu ànd koog mboolem Baye Fall boo xam ne mu ngi nekk fii dañuy daal di ànd suñu cameraman rek daal leen di defar ay interview mboolem Baye Fall boo xam ne ak mboolem jullit boo xam ne yaa ngi ci biir baaxee na defar interview ñu fas yéene laaj ni nga xamante ni moom la ñuy dundee liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñun mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sëriñ bi yabalee fii ci ya ngir ñu laabal ko ba mel ni mu bëgg loolee kat murid yëpp àndandoo nañ ko ci ndigalub sëriñ bi ñu àndandoo koog Cheikh Moudou Falilou Fall xalifab sëñ Moudou Aminata Fall ñuy ñaan nag saa borom kàttanal ko te doolel ko te yokk ak wéram biir ak biti moom siñ sëñ Moudou Aminata gépp lii nag ñuy wax néew nañ lool ndax jëf jee ëpp solo wax ji waaye buñ nu wax waxloo mënuñoo ñàkk a wax kem lañ ca xam muy jëfinu ndigal rek muy jëfe ndigal yi tey bàyyi tere yi ndigali nag mooy bu sëriñ bi wootee képp koy ab murit war nga wuy ji ci woote boobee nga xam ne nii kenn woote wu ko ku dul sëriñ Tuubaa mu dal ci loxob Cheikh Fall murit di fas yéene koo jëfee loolee dong nag mooy lii murit di àndandoog jaami yàlla yi te di ko defandoog ñoom eh, sëñ Moussa Mbar nag daa wax ne am murit kat lay am murit mooy ndigal lu jóg te jëfewu ko mooy ambañam mbañam daan am mbañum sëriñ nag mooy war digle te wul loolu nag ñun murid yi àndandoo nañ pas-pasuk Cheikh Moussa Mbar boobee fas yéene ko te di ko ànd ak moom ak ak murid yëpp di ñaan nag rajo bii nga xam ne moo ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi di ñaan wéruk sëriñ bi yàlla na dolleeku amuk sëriñ bi ak murid yi yàlla na dolleeku li sëriñ bi ba woo ñu ci lii. yàlla na ko sëriñ bi kattanal te dooleel ko te dolliwaat xéewal gi ci biir donga yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yaay Fall lañ yëg-yëg bi mooy ñaqal sëñ bi rek fu sëñ bi wootee rek ñu daw fu ñaq bi mën a rote daal ci sëñ bi ñun moom la ñuy wër fépp foo xamante ne sëñ bi soxla nañu daal ñu bàyyi yitte yi rek daal daw fii nag moom tey sëñ bee ko woote. nga ko ni benn Baay Faal te te desut ñëpp a ngi ci waar wi ku nekk rek ba nga sa yitte loo jàppoon nag ak loo doon def rek ba ko daw si nag ñu ñaqal sëñ bi kon yàlla nañ sëñ fayal boppam moom rek moo ñu fi indi daal gis nga kon nii mooy bàq ya fii set na wecc ñi ñaa ngi ci Baay Faal yaa ngi ci kawam murid yaa ngi ci kawam waaw yaa Faal yaa ngi ci yëpp a ngi ci kawam di ñaq rek ngir sëñ Tuubaa yàlla nañ sëñ Tuubaa fayal boppam. waaw moom de xanaa di sant rek moom sant sëriñ bi bu baax baax baax te jiite nag ci wax ji. sëriñ Muntaxa Mbakke saa borom doole ko fe yàggal kattanal ko ba naa li mu naanal maamam ju baax mi yàggal ko sagom ànd koog jëwrin maam Sidi Ibrahima am suñu am lu di ko ñaanal baax muy Fall Njaga saa borom doole ko fee yàggal suñu kanam ñu yàgg ñëw jiite lool ànd koog Baye Fall yi ak mboolem waa kër maam Cheikh Fall ak borom Tubaay di ko ñaanale noonu ak taalibe yëpp di sant nag bu baax a baax baax ab donga moom wax nañ ne amul lenn lu dul defal mu def bàyyil mu bàyyi te wax nañ ne lii rek ko ko jik waaw nun da lii mooy suñu fierté nu koy waxee waaw nu woote ñu wuy si waaw nu ko bëggee ñu defee ko noonee mbaa nu nu ko noonee rek waaw. ah noonu xanaa nu leen di sant rek ndax nun nam borom Tuubaa jéggal nu ngi bàyyi ko ba Touba Sow parcelle waa kër Baye Ndiaga Diop Baye Fall lañu waaye daara ji ñëpp a bàyyi ko nu at mu jot bu nu wootee dañuy soxna yu baax yi jëwrin bi ñu ngi koy siyaare baax di Baye Moustapha mu Baye Ndiaga Diop Baye Fall di ko ñaanal wax sa borom kattanal ko baax waaw ñoom seen tànk lañ nekk waaw bu ndigal jibee rek yebal nañu tey jox nañu ay jumtukaay ngeen ñëw teewale di soññi nag mboolem ñu ñu fekk fii nga xam ne ah wax na ne kat ndimbal la waaye nu ngi ciy sant bu baax sëriñ waaye nan borom tuwaa jéggal ñoo ngi leen di bàyyi loo xel bu baax a baax baax kii fi nekkal borom tuwaa te di borom tuwaa ju ju sotti waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax baax ci woote gi te jamono jii nii mu bindoo ak ak Baye Fall yi damay faral di wax ne bu wanewul lanay Baye Fall mu ngi sagal Baye Fall yi mu ngi daaneel fa kàddu bu baax a baax sëñ Fall waxee rek day loolu jëmmi sëñ Muntaxa moom Baye faal yi mënatuñ koo fay jëmmi sëñ Muntaxa daa sagal Baye Fall yi daa dooleel Baye Fall yi waaye nag man li ma si jàng mooy ba képp ki ñuy jiñ ab Baye faal war ngaa fexe jaayante sa diggante ak sëriñ bi xool ba xam sëñ Muntaxa nii mu ñu def ndax kenn ku si ne yaa ngi si biir loolee mbaa mbaa déet ndax kat benn Baye Fall bu dëgg la ma gën a sama jëmm nga di ko ndamoo xoolal ba xam Baye Fall yooyu yaa ngi si biiram déet waaw ndax yoonu Baye moom la Cheikh Fall Baye góor doon wax rek aw yoon moom benn koy sàkk dox caa tax ku doxut ku ne da ngaa a wàcc aw yoon bi nga koy sàkk dox caa tax ku doxut danaa war a wàcc sant rek maanaam sante rek te xam ne kii ñuy liggéey liggéeyal fu mu ñu woo ñu wuyu ko kenn ku si ne bu la wooyee liggéey bi mu mënta jàpp moom genn liggéeyam la ndax addee gi ñu siy sàkku def ko si liggéey gi la fu mu ñu fu ne rek yite gi mu mënta doon dañ koy bàyyi ndax woote moo gën suñu woote waaw ndax moom bu woote daa war a woote xam nga dañuy naan digle baax na sëñ am di xet dafa ne lu baax baax na de waaye ndigal daa ëpp doole waaye nag rawatina nag ku lay digal dig la mais jëmmi sëñ Muntaxa day sëñ Tuubaa lu baax baax na waaye ndigal daa ëpp doole waaye ki lay digal moo la ku la war a digal moo la digal mi jëmmi sëñ Mountakha waaw ah, kon dañuy santaat bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi wér di wax ne Cheikh Rafal nañu dimbali kàttanal ñu ñun lii dongu leen bëgg dégg naa kat basina si benn waaye mu ne lu la waaye jox nga fob di faj say aajo te bu ndigal jotee nga naan ma fekk leen fa bokku si Baye Fall gars yi xam leen ko loolu waaye jox nga fob di faj say aajo bu ndigal jotee nga naan fekk leen fa bokkul si Baye Fall gars yi xam leen ko ñu ngi tuub bu baax te di leen siyaar